بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بقي جلدي نوني للنيو جلان سيارة جلان بالحق تلك ساقوتيا بفاسي لي أنا أجيش نجيرو ويركون بيب كنا في اللي كي قد يقنك ديكو سكن ديكو كي تيرك سرين صعب مكة مطلق قرة العين بدي مليكو قاتل وصل سبحانه وتعالى جك لولو ني ساقوتيا نيب képp koo xam ne abonné goo ci seen youtube bi di Aynul Hayaat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir bu dugalee naafile yi ngeen mën cee jot ci waxtu ak mbooleem yi am njëriñ yi am yëpp ngeen mën cee jot naafile guddi ñetteel gi nag juróom benn rakka la rakka bu ci ne fatiha benn yoon ak inna anzalnaahu ba saar wi jeex ñeenti yoon ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna ba saar wi jeex ñeenti yoon sëriñ bi nee na julli googa du ku ko def dana mel ne ku dana mel ne ku goreel junni jaam ak ku jox ndogu junni ñu woor wodd junni ñu rafle lalee junni ñu xiif dees na ko ca bindal itam tuyaaba ju tonne li mu ñanaaw yi ci àddina yépp te dees na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak ñi dee ci xare te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te deesu ko mbugal itam ci bàmmeelam bu ko defee ñuy ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bu defal ñu koor gu jàmm koor gu nangu يباتك سيخ الخليم جرنجين جف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعدوانا بارك لنا في العقد والتفقه وفي تصوف يا مفاق